<laughs> kilifa bi kon yaa ngi. waaw naka def yaa ngi numéro bi ba léegi kon. <laughs> waaw waaw. ah ka damaa jaaxle damaa gis ñu dugal ci affaire bi loo xamante ni moom mën a waaw déet ma góor gi moom. waaw gis nga de gars yi ñoom ay dooleeram lañu lu leen lañu def. allahu akbar allahu akbar ko def. ñoom ay fenkat lañu. allahu non saa neexoo ko def. allahu akbar allahu akbar. saa neexoo ko def te bi mu ko defee après bi ma ko joxee téléphone. Mhm. nee na ma man maa ko def. allahu akbar parce que dama ñëw sama da nga eh, bàyyi di def feebar hmm. rek. allahu akbar allahu akbar. nee na moom moo ko def ma ne ko yow di def xam loo ko nag. ah kilifa gi jot yow moom toogal si ba si kanam a ñu lool. amiin amiin lool lool parce que ñun les acteurs culturels de Rufisque xam nañ vraiment sa sa sa sa njëriñ. je ne de ça mais au niveau comme au niveau donc daal vraiment yal na la fi yàlla bàyyi suñu kanam lool lool lool may la wér gu yaram bu sax dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk bàyyi yow dara jot bu dara jot wax fa dëgg si yàlla dama ko dégg rek dama tiit wallaay azim amiin wallaay azim sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax ah. ban sant bu baax mu ne sama waa kër mbokk ñëpp a jaaxle bi mu yàlla sant yàlla bu baax a baax baax sant yàlla yàlla na yàlla ba si kanam a kanam a kanam a kanam merci beaucoup merci jërëjëf allez merci beaucoup merci. asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo émission bii di au euh, cœur des scandales rumeur ak histoire mu ngi leen di indil mbir mu euh, doy waar. tuy tuy tuy dafati nañu njombe bàyyi ili góor góor góorlu moom la ñu rey ko xiteet mu dee. xoolal ma rek Sénégal fi mu toll moo tax émission bi nga xamante ne ni moom mooy rumeur di scandale di fantasme fake news fausse information intoxication ñu sos ko duguleet Sénégal dañu bëgg wax dañuy wax di wax di wax di wax di wax léeg-léeg sax dañuy foog ne ak nit moo leen teree dem déedéet seen wax ju bari moom moo leen di yóbbu si ñàkk mën a yegg ana nan la mën a toogee rek xalaat rek si xelam rek mu toog rey benn doomu aadama non seulement yemul foofu mais xoolal ñu tàgge ko le plus rapidement possible ñu tàgge ko si ni mu gën a gaawee ak a doy ak a yéeme fan la ñu ute information si internet copie collé dégg naa foog naa yaakaar naa nee nañu am na kilifa gu tedd Seydina Limaamu alayhi salaatu wa tere woon na ko ay taalibeem waxiili waxaala foog naa yaakaar naa dégg na waaye jamono rek wéy si loolu ñu ne duñu ko bàyyi mukk information ñoom maa ko njëkk a loolu la ñuy bàkkoo loolu moom mooy seen ndam loolu la ñuy tiitaroo copie collé du si ñoom rek de gis nga sunu journaliste yi gën a mag ci àddina wax naa la ko ne la copie collé la ñuy liggéeyee li ñu gis si internet bi parce que la am Amérique la nga xamante ne ni moom a xew si Chine amuñu envoyé spécial foofu noonu si Chine donc ñoom li ñuy dégg ci internet bi rek moom la ñuy jël bindaat ko xel xal ma fàttali ndeysaan Xalifa Jaxate moo nekk tey jii nii i rajo dafa demoon fii ci géej gu Yoof ndeysaan jamono jooju géej gi mu ngi génne ay ndox yuy tàkk fii di saf xorom fii di saf euh, ndox mu lawet ndeysaan mu tibb sa ab bitéelam yóbbu ko seeni bureau ba mu duggee di bind ci mbir mi ba ba mu génnaatee la xaritam ba jël kayit ga bind ci loo xamante ne ni moom mi demoon sur le terrain sax dafa yéemu ci boromam maanaam bind ci wax loo xamante ne ni nee na dafa jéggi dayo loolu tamit yéena ko ci bi muy dugg ci buntub journalisme comprendre ne lii nii day lii xew nii day ah war na ma yee intoxication dafay jir ay mbir yoo xamante ne ni ay mbir yu doy waar la ndeysaan ne teel teg ko ci doomu aadama bi xew na fi xewati na fi du ne mukk ne guléet la fii ci Sénégal kon mu war a nekk mbir moo xamante ne ni war nañuy bàyyi xel li nga xamante ne ni su ma ko tegee sa der du la neex waruloo yëkkati mukk mbir mu ni ñaawe musiba bu ni mel nga teg ko ci derub doomu aadama sunu star ki nga xamante ne ni moom mooy sunu monument sunu légende bàyyi ili góor góor góorlu bégal ñu ci faat na bu nekk ñu bëgg mu gudd fan ndeysaan man de bi ma ko déggee rek sama xel dafa dem ci sketch bu ndaw bu 30 secondes boobu bii waa ji naan diw daal dañ ko fekkee rek mu toog fi mu toogoon fa la rek mu jóg taxaw ne dafa warul a jóg la def ay mouvement noogu ndeysaan punkal mi kiil nu laalal ndax nu seet kiil nu laalal dafa rëy si nun bàyyi ili góor góor góorlu ah lii rek ñu jàpp ne yàlla dala nar a yokk sa ay fan ndax loogu lanoo noo wax waaw kan fi rey rey na fi ay nit yu bare bare bare bare bare bare ba léegi nii ñu ngi dundal la doxe ji seeni muraada ñu ngi kaa ñaan suñu borom si barke weeru koor gi nga xamante ne nii si la ñu nekk bàyyi ili gudd fan xam nga yàgg fi yàgg di ñu bégal e ñi may déglu tamit bàyyi xel si rumeur ak li nga xamante ne nii moom mooy fantasme ak li nga xamante ne nii moom mooy histoire ak intoxication si alxay alxaybu TV fake news xibaar bu ñu sos tas ko nee naa la ko koy def am na la musa jublu donte bi sax du ko xam ka mu koy teg si deram donte bi sax du ko xam nit ñi koy déglu donte bi sax duñu ko xam mais des mal intentions intentionnés mooy le malheur qui fait le bonheur des autres saa yi bu jugee rek mbokk mi ñëwal ci alxaybu tv ñun dinañu la wëral information bi ba mu leer nañ boo ko déggewlee fii rek xamal ne amul lépp loo déggati lépp loo mënti déggati ñëwal ci émission bu ñu naan euh, cœur des scandales xamoon nañu ne dañuy dëkk di def ci ay scandale moo tax ñun ñu sos émission bii nii pour xamal leen leen mbir moomu du lenn lu dul rumeur rumeur nan lañ koy xamee dangay dem ca mbokk ya dangay dem ca kër ga boo déggatee mbir bu fekkente ne ni lu ñu jiiñ niñ la ak sàcc la moo xam ak ndëmm la wala rey ak nit da ngay dem nga jege nit ma ne benn pàkk rek tur lay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci beneen numéro au euh, cœur des scandales rumeur fantasme ak histoire fake news fausse information wax loo xamante nii. man mi maa dugaloon audio bi nga xamante tey jii moo waral coow li yëpp e, te ba ma koy dugal tamit awma woon yéene ne tey jii bàyyi yaakaar na tey jii lii su ma ko dugalee dina àgg fii yëpp parce que dugal nekk naa si benn group ñu dugal photo Baye Ely def ci tàgge e, ça m'a parce que fi information bi jógee di ndakaaru man ma dëkk Tëngéej je me suis dit balaa kenn di si wax yaakaar naa man mi dugg Tëngéej de dëkk Tëngéej te yor numéro war naa ko war a mën a woo xool ba xam ndax li ñuy wax am na mu amul. Euh, quand je l'ai appelé mu tontu ma d'abord euh, mu ne ma allo rek am na lu lu bëri lu jóge si man parce que ki ñuy tàggee bay def annonce ne dafa dafa ko mu uyu la man que ne tey jii la ma yëg manax yàlla rek ko xam euh, subitement j'ai pas j'ai pas réfléchi ah. pour wan ne si groupe bu ma ko dugalee ne leen ki ngeen den dafa dee deewul mu ngi si jàmm ak mu ngi si salaam et je pense que intention boobu laa si amoon te ba may dugal tamit audio boobu masuma xalaat na sax am na beneen wax man sama problème yëpp mu doon wan ne ñi ko dugal ne ki ngeen naan dafa dee deewul euh, li may def nag mooy d'abord dama koy wu moom euh, Baye Eli parce que man sama kilifa la sama royukaay la te yaakaar naa tamit yàgg na bëggal doomu aadama yi muy si Afrique muy si Sénégal muy si àdduna bi yëpp donc bàyyi Elie man damay dama lay jéggalu parce que xam naa mbir mi fu mu nekk nii ni mu mel si yow di jéggalu te encore une fois njaboot di leen baalu ak parce que intention bi taxoon ma def ko ak ni tournure bi amee c'est diamétralement opposé euh, di baalu tamit àdduna bi yëpp ah parce que dañu nekk si weeru koor te ma gëm ne tey jii si weer bi ñu nekk nii yaakaar naa war nañ ma war a mën a tal leneen loolu ay teesante ak ki nga xamante nag moo ko def bàyyi naa ko suñu borom si weeru koor bi Euh, je ne vais pas chercher de midi à 14h kan laa ko dul kan parce que gëm naa ne si groupe boobu laa ko envoyé ka ko def nag xaw ma mais maa koy bàyyee suñu borom parce que intention bi taxoon ma def ko ak intention bi nga xamante ni moom la jur euh, au fa dëgg sa yàlla euh, naxari na ma lool ba fu naxari yem naxari na ma trop trop trop trop trop trop. waaw li si yokk mooy maanaam bi may jëlee <laughs> audio bi même pas senti ne sax tudd na si nit vraiment. parce que dama gëm na tey jii su su euh, su tuddoon nit man au moins def naa ban école am na yoo xamante ni du ko def pour pour tilimal deru jàmbur baa ñaawal deru jàmbur je même pas même pas prêter attention ne sax tudd na nit et yaakaar naa ko ko xam-xam ne c'est sa façon de parler moom lépp la boo xamante ni bon xamaax nangamax yooyu def ko yaakaar naa muy dara donc moi je encore une fois saa euh, neex yooyu man personnellement man personnellement au nou de la famille man it maa ngi lay jégalu ba fu jégalu yem maa ngi lay jégalu jégalu jégalu que bi ma xëyee soo ba léegi mënumaa toog j'ai vu un peu vu les vidéos dama mujj off mais quand je te vois ngay waat si sëñ Babacar si nga xam ne man mooy sama wasila man moom laa gëm donc euh, euh, bi nga waatee si sëñ Babacar xam naa ne donc am nga yëg-yëg am nga lu la trop te loolu yëpp maa koy bokk ak yow encore une fois Sanekh maa ngi lay jégalu jégalu si turu bi yëpp di la jégalu tamit fu jégalu yem.